ci njëlbeen ga fekk na kaddu gi am te kaddu gi mu ngi woon ak yàlla te kaddu gi yàlla la woon moo ki nekkoon ak yàlla ca njëlbeen nga ci moom la yàlla jaar sàkk lépp amul dara lu ñu sàkk te jaarul ci moom ci moom la dund gi nekk te dund googu mooy leeral nit ñi leer gi na ci biir lëndëm gi te gi jàpp ko yàlla yónni woon na nit ku ñu naan yaxya kooku ñëw na doon ab seede ngir wax ci mbirum leer gi ñëw ngir ñépp dégg limu mu wax te gëm boppam du woon leer waa ñëw ngir seede leer kaddu googu mooy leer gu wóor gi ñëw ci àddina te di leeral nit ku nekk ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñam nangu wuñu ko teewul ñi ko nang te gum ci turam may na leen ñu am sañ-sañ nekk doomi yàlla ñooñu judd wuñu ci deret walla ci bëgg-bëgg yaram walla ci coobarey nit ñu ngi juddo ci yàlla kaddu gi ñaw doon nit dëkk ci sunu biir gis nanu ndamam mu fees ak yiw ak dëgg ndam li baay bi jox jenn doomam ji mu am képp yax yaa ngi koy seedel te yëgle na lii nee na moo ma wax dina ñëw sama gennaaw waaye moo ma gën a màgg nekk na laata may judd kaddu gi fees na ak yiw te nun ñépp jot nanu ci sunu wàll mu barkel nu ay yooni yoon ndigali yàlla yi ci muusa lanu leen jaarale yiw wi ak dëgg gi yeesu kirist moo ko indaale kenn musula gis yàlla waay bajj bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle lii mooy seedes yaxya amoon na bés yawut ya ay sëriñ ca yaxya ñu ànd ak ñu suqi ko ci giiru lewi ñu nga jóge yerusalem ñëw ci moom di ko laaj mooy kan yaxya tontu na leen te nëbbu ci dar wóoral na leen ne moom du almasi bi ñu laaj ko ne kon yaay kan ndax yaa di iliyas mu ne leen déedéet duma iliyas ñu ne ko ndax yaa di yonent bi wara ñëw mu tontu ne leen déedéet noonu ñu laaj ko ne wax nu yaay kan ngir ñu mën a tontu ñi nu yónni nga ne yaa di kan yaxya tontu leen liyonent yonent yàlla esay waxoon ne man maa baat bi yégle ci manding nding xalla leen yoonu borom bi amoon nañu bokk ci farisen ya yu àndoon ci mboolo mi ñu woon ci yaxya ñooñu laaj ko ne gennaaw doo almasi bi doo iliyas doo yonent bi wara ñëw lu tax ngay soob ñi ci ndox yaxya ne leen man maa ngi soobe ci ndox waaye am na ci seen biir ku gën xamul kookoy ñëw sama gennaaw te man sax yeewuma tekki ay dallam lii xewoon na ci dekku betani ci gennaaw dexu yurdan far yaxya doon ci ëllëg sa yaxya gisee yeesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara ngir dindi bakkaaru àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gennaaw waay moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu xamuma woon kooku kan la waroona doon waaye xamal ko banni israila moo tax ma ñëw di soob nit ñi ci ndox ci kaw loolu yaxya seede naa lii gis naa xelu yàlla mi ci melew pitax mu joge ci asamaan tegu ci moom bi laata am xamuma woon mooy kan waa yàlla mi may yebal may soobe ci ndox ne woon na ma dinga gis xel mu sell mi wàcc tegu ci kaw nit kooku moo di kileen di soob ci xel mu sell mi yaxya teg ca gis naa loolu te seede naa ne moom di doomu yàlla ji ci ëllëg sa yaxya taxawaatoon na ci bere booba ànd ak ñaari taalibeem bi mu gise yeesu muy romb mu daldi ne kii mooy mbotem yàlla mi ñaari taaliba ya dégg li mu wax daldi dem toppi yeesu yeesu geestu gis ne ñu ngi koy topp mu ne leen lu ngeen soxla woon ñu tontu ko foo dëkk rabbi rabbi mu ngi tekki kilifa gi yeesu ne leen kaay leen gis noonu ñu dem seeti famu mu daloon ngoonalal ko ci takku saanu kaw la woon kenn ci ñoom ñaar ñi déggoon li yaxya wax te topp yeesu mu ngi tuddoon andre mi bokkoon ak simon piyeer ndey ak baay andre dafa dal dem seeti simon ne ko gis nanu almasi bi baat boobu mu ngi tekki kirist noonu mu yóbbu ko ci yeesu yeesu xool ko ne ko yaa di simon doomu yuwanna dinañu la wooyee sefas sefas mu ngi tekki piyeer maanam xeer ci ëllëg samu fas yéene dem diiwaanu galile te mu gis filip yeesu ne ko toppal ci man filip mu nga dëkkoon betesayda dëkku andre ak piyeer filip dajeeg natanayel ne ko gis nanu ki yoonu muusa wi ak yonent doon wax mu ngi tudd yeesu doomu yuusufa te dëkk nasaret natanayel tontu ko ne ah ndax dara lu baax mën na jóge nasaret filip ne kon ñëwal gis nak la yeesu gis natanayel jëm ci moom mu daldi ne ci mbiram xool leen nitu israyil dëggaange di ñëw du dox benn tànku caaxaan natanayel ne ko noo ma yeesu tontu ko ne bila filip di laata woo gis naa la bi nga nekke ci këru garabu figg ga natanayel wax ko ne kilifa gi yaay doomu yàlla ji yaa buuru israyil yeesu tontu ko ne ndax li ne gis ci këru garab ga moo tax nga gëm dinga gis mbir yu gina rëy yi noonu mu teg cene ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax dingeen gis asamaan si ubbiku malaaka yi baagante kaw ak suuf di wàcc ci doomu nit ki ñaari fan gennaaw loolu ak ceet am ci dëkku kana ci diwaanu galile yaayu yéesu teewe woon na ko woowoon nañu it yeesu ci ceet ga ak ay taalibem ci biir xew waa biñ ba daldi jeex yaayu yeesu ne ko amatuñu biiñ yeesu ne soxna si loo ma bëggal ndaxte sama waxtu jotagul yaayam daldi ne surga ya def leen lépp lu mu leen wax foofa amoon na fa juróomi benn ndaa yu ñu yett ci doj yu yawut ya daan jëfandikoo ngir seen sangu set ndaa lu nekk mën na def daanaka téeméeri liitar yeesu ne surga ya duy leen ndaa yi ñu duy leen ba ñu fees boy rambaat noonu yéesu ne leen tànq leen ci léegi yot ko njiitu xew wi ñu daldi ko ci yot ki jiite xew wa ñam ndox ma yeesu soppi biiñ xamul woon fu biiñ booba jóge waaye surga ya tànqoon ndox ma ñoom xamoon nañu ko naka noonu mu woo borom ceet ga ne ko ci xew yépp naan gu neex gi lañuy jékke bu nit ñi doyale ñu sog a génne ga ca des waaye yow dencoon gi gina neex ba negeni firnde bi amee ci kana ci diiwaanu galile moo doon kiiman gi yeesu jikka def ci noonu la wone màggaayam te ay taalibeem gëm nañu ko bi loolu weesu mu ànd ak yaayam ay rakkam ak i taalibeem dem dekku kaparnawum waaye yëgguñu fa màggalu yawut gi ñuy wax bésu jéggi ba mu ngi doon jub si yéesu dem yerusalem dugg ci kir yàlla ga bi mu fa demee fekk na ci ëtt ba ay jaaykati nag ak yi xar ak yu pitax ak weccikatu xaalis yu toog noonu yeesu rab ab yar dal di leen koy dàqee ngir ñu génn ëtt kir yàlla ga ñoom ak xar ya ak nag ya mu tasaare xaalisu weccukat ya daaneel taabal ya dal di ne jaaykati pitax ya jële leen fi lii sama kiru baay bu leen ko def marsi taalibeem ya fàttaliku mbind mi cawarte gi ma am ci sakir mu ngi mel ni taal buy tàkk ci samak biir noonu yawut ya ne ko ban firnde nga ñuy wan ngir déggal ne am nga sañ-sañu def li nga def yeesu tontu leen daane leen kir yàlla gi ma dal di koy yëkkati ci ñetti fan ñu ne ko ngaane kir yàlla gi ñu tabax ci ñeenti fukki at ak juróom benn mën nga ko yëkkëti ci ñetti fan waaye kir yàlla gi yéesu doon wax nekkul woon ab tabax aw yaramam ci boppam moo ko taxoon di wax gannaaw ganak bi yéesu dee ba dekki la taalibeem ya fàttaliku li mu waxoon daldi gëm mbind mi ak waxi jëleen yeesu waxoon bi yeesu nekke yerusalem ci màggalu bésu jéggi ba ñu bare gis kéemaan yi mu doon def daldi gëm ci turam waa su wóoluwu leen woon ndaxte xamoon na leen ñoom ñépp te it soxlawul ñu koy xamal dara ci nit ndaxte moom ci boppam xam na xolu nit amoon na ci farisaan ya nit ku ñu naan Nikodem te mu bokk ci kilifay yawut ya genn guddi mu ñëw ci yeesu ne ko kilifa gi xam nanu ne yàlla la yónni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula def firnde yi ngay wan te yàlla àndul ak moom yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën seede nguuru yàlla nikodem ne ko nit ku xas ba màgget nan lay mën a judd judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yeesu tontu ko ne ci dégg dégg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mun a bokk ci nguuru yàlla lu juddo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne judduwaat bu mu la jaaxal ngelew fu ko neex lay jublu yaa ngi koy dégg waay xamuloo fu mu joge xamuloo fu mu jëm noonu la it ci képp ku juddoo xelum yàlla ci baat yooyu ni ko dem ne ko na loolu mun a ame yeesu tontu ko ne yow yaay jàngal bani israil te xamuloo mbir ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax noo ngi wax li nu xam di nettali li nu gis waaye nangu wuleen a gëm li nu seede gennaaw gëmu li ma leen di wax ci mbiri àddina naka ngeen mën a gëmee bu ma leen waxe ci mbiri asamaan kenn mësula yéeg ci asamaan su dul kii fa muy doomu nit te it na muusa sampe woon ab bant ci diggu manding ma takk ci jaan jamu defare woon xanjar faw ñu yekkate noonu doomu nit ngir képp ku gum am ci moom dund jeex ndaxte yàlla dafa bugg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko am dund gudul jeex doo sanku mukk yàlla yónniwul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen képp ku ko deesu la daan waaye ku ko daan nanu la ba ndaxte gumuloo ci turu doom ji yàlla am képp ci nii la atte bi ame leer gi ñëw na ci àddina waay nit ñi lëndëm gi lañu taamu ndax seen jëf yu bon képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ bëcceku ndar kam waaye ku def lu jub day ñëw ci leer gi ngir ñu xam ne def na ay jëfam ci kanam yàlla gennaaw loolu yéesu ànd ay taalibem dem ci biir diiwaan yude toog fa ak ñoom ab diir di soob nit ñi ci ndox yaxya moom itam doon na soobe ci ndox ci dëkku ay nuun ci wetu dëkku selim ndaxte diiwaan boobu bare woon na ndox nit ñi daan nañu ñëw ci moom mu di leen soob booba tëjeguñu yaxya ci kaso foofa ay taalibey yaxya tàmbale werante ak benn yawut ci mbirum sangu set ci kaw loolu ñu dem ci yaxya ne ko kilifa gi ndax fàttaliku nga kooku nga seede woon te mu nekkoon ak yow ci gannaaw dexu yurdan moom de maa ngi soobe ci ndox léegi te ngi dem ci moom yaxya tontu leen kenn mënul am dara lu ko yàlla joxul yéen ci seen bopp man ngeen seede ne waxoon naa ne duma almasi bi waaye dañu ma yónni ma si ko ki ceetal moomoom ceetam waaye xaritu kii ceetal dafay taxaw di ko déglu tey bég bu déggee baatam mbég moomu moo di sama bos tey te fi mu nekk mat na sikk li wara moo di moom mu gën a màgg te man maa gën a féete suuf ki jóge ci kaw moo féete kaw ñépp ki jóge ci suuf nag ci suuf rekk la mën a bokk te ni nit àddina lay waxe ki jóge asamaan day wax li mu gis ak limu mu dégg kenn nanguwul li mu seede képp ku nangu seedem nangu nga ne yàlla dégg lay wax ndaw li yàlla yónni kàddug yàlla lay wax ndaxte mayu xel mu sell mi yàlla sol ci moom amul dayo baay bi dafa bëgg doom ji te jox na ko sañ-sañ ci lépp ku gëm doom ji am nga dund gudul jeex ku deggadil doom ji amuloo dund gi waaye merum yàlla ngi lay tiim amoon na benn bés farisen yi dégg ne ñi topp yeesu ñoo ëpp ñi topp yaxya te ñi yeesu soob ci ndox ñoo ëpp ñi yaxya soob fekk yeesu moom ci boppam daawul soob kenn ci ndox waaye ay taalibeem ñoo daan soobe bi yeesu yegee loolu nag mu joge yudee dellu diiwaanu galile bi muy dem galile waroon na ci diiwaanu samari noonu mu egsi ci wetu dëkku sikar ci tool bi yanquuba mayoon doomam yuusufa foofa la teenu yankuuba nekkoon yéesu toog ci pendu teen ba di noppalu ndax coonob tukki ba ci digg beccëg la woon noonu jigéen waa samari ñëw fa di root yéesu ne ko ma ndox ma naan fekk booba nag taalibe yéesu ya dañu demoon ci biir dëkk ba di jënd lu ñu lekk jigéen ja tontu ko ne yow ngay yawut man may jigéen ju dëkk samari nan nga ma mun a ñaane ndox jigéen ja wax na loolu ndaxte yawut ya bokkuñu woon ak wa samari ndab yu ñu lekke noonu nag yeesu tontu soo xamoon li yàlla maye xam ki lay ñaan ndoxu kon yow ci sa bopp yaa ñaan te moom dina la may ndoxum dund jigéen ja ne ko sang bi teen bi xoot na amuloo baag kon fooy jële ndoxum dund xanaa kay xalaatuloo ne yaa gina màgg sunu maam yanquub moom minu gasal teen bi mu naan ci moom ak i doomam wëgg cig jiram yéesu wax ko ne ku naan ci ndaxum teen bi bala yàgg mum maraat waaye ndox mi may joxe ku ci naan doo marati mukk ndaxte day nekk ci moom bëtu ndox buy balla di joxe dund gudul jeex noonu jigéen ja daal ko ne sang bi may ma ci ndox moom ngir ma bañatee mar boy ñëw ba fii di root si yeesu ne ko demal woowi sa jëkkër te ñëw jigéen je tontu ko ne aw ma jëkkër de yeesu ne ko wax nga dëgg ne amuloo jëkkër ndaxte amoon nga juróomi jëkkër te ki nga nekkal léegi du sa jëkkër li nga wax dëgg la jigéen ja ne ko sang bi gis naa ne ab yonente nga nun nag naka jëkk sunuy maam ci tund wee seen lañu daan jaamu yàlla waaye yéen yawut yi dangeen ne yerusalem lañu wara jaamu yàlla yeesu ne ko jigéen ji gëmal lii ma lay wax dina am jamono joo xam ne doo ci tund wele te doo ci yerusalem ngeen di jaamu baay bi yéen waa samari xamuleen li ngeen di jaamu nun yawut yi xam nanu li nuy jaam ndaxte kii musal àddina ci yawut yi la jóge waaye jamono dina ñëw te agsi na ba noppi jamono joo xam ne jaamukat yi dëgg dinañu jaamu baay bi ci xel ak ci dëgg ñooñu nag ñooy jaamu baay bi ni mu ko bëgge yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg jigéen jane ko xam naa ne almasi bi maanam kirist dina ñëw te bu ñëwe dina nu leeralal lépp yeesu ko maa di almasi man mi wax ak yow noonu nag taalibe yeesu ya dellu si gis muy wax ak ab jigéen ñu daldi di jaaxle lool waaye kenn ñemewu ko woon ne looy laaj walla lu tax ngay wax ak moom noonu jigéen ja wàcc fa njaqam daldi dem ci dëkk bane ne leen kaay leen gis nit a ngi ma wax lépp lu ma mës def ndax kooku du almasi bi noonu waa dëkk ba jóg jëm ci yeesu fekk taalibe yeesu ya di ko gëten ne kilifa gi lekkal waa yeesu tontu leen am na ñam wu may lekk te xamu leen ko taalibe ya nag di naan ndax dafa am ku ko indil lekk yeesu ne leen sama ñam di def coobare ma yónni eggale liggéey bi ma sant du ngeen naan fii ak ñeenti weer ñu góob waaye man demaleen naan xoolleen tool yi ñoo ngi ñor bo weextal di xaar ku leen góob kii góob tool mu ngi jot xaat peyam dey dajale nit ñi ngir dund gudul jeex ni ñuy dajale pepp kon boo kii ji dina béyandoo ak kiy góob wax ji ñu wax ne kenn dina ji keneen góob dëgg la yebal naa leen ngeen góob tool bu ngeen beyul ñeneena ko bey te yeena ko jiriño bi jigéen jane waa dëkk ba wax na ma li ma def lépp ñu bare gëm nañu yeesu ñu daldi dikk ñaan yeesu mu dal ak ñoom yeesu toog fa ñaari fan ñu bare gëm ko ndax li mu doon wax ñu ne jigéen ja léegi gëm nanu te du li nga wax moo tax waaye li nu gisal sunu bopp te xam nanu ne dëgg dëgg kii moo di katu àddina si